dëgg-dëgg mën nañ ni waraqa bi ñu war a insha allah euh, suñu sëriñ Ahmad Mokhtar lu bu kokki di jàngalekat ci université bu piir moom moo ko waroon a joxe tey euh, gannaaw bi mu am ay gàllankoor fekk jot naa bind kayit yu ba noppi gannaaw bi ci lañu ko yónnee ni comme que du mën a teew ko fi teewal defee ñu joxeel ko kaddu yi nga xam ni bëggoon na ko fee joxe mu nekk nag ab yenn bu diis lool sax na bu diis lool li ko waral mooy jàpp naa ko xam en ak ak ni ya am kàngam bu toll ni mu yaakaar naa ko ci jotaay yu mel nii du yomb beneen bi tam muy mbind mi mu mbind di moom ci benn interview bi ma def sa sa sa olof yi taq taq nañu tubaab loolu waaye tey moom bu ñu bu ñu moytuwul olof yi taqi arab dañuy am euh, kon dina dina doy waar ndax du sax nag ñàkk a dégg wolof ndax ñun ñëpp wolof dañ gën a dégg que ci beneen làkk bu dul wolof waaye dafa fekk ne suñu luxaat yi te defe naa bu ñuy wax ci ndono foofu sax lañ war a tàmbale nag ndax ndono li gën a mag jàpp naa ni moom mooy saw làkk nit ki su fekkee ne saw làkk doo ko jàngee saw làkk yi teewoo ba tey jii mu mën a nekk luga académie yi ni ñuy defee ay muhaadara ay conférence académique ci français ak anglais ñu mën koo def ci wolof ak pël ak séeréer yaakaar naa ni dama goo fenn te amagul amul menn réew moo xam ne dem na ca kanam ci sukkandiku ci aw làkku jàmm kon man jàpp naa ni te làkk dafa am ñaari dimension parce que moom ci ndono la bokk waaye ndono yëpp daanaka fa lay jaar ndax tey soo bëggoon a yar sa doom ci ci ci dara ci aw làkk nga koy jaarale li boo xoolee mag ñi taxaw gi ñu taxaw woon ngir bañ a jàng tubaab ak bañ koo jàngale du woon jëm làkk ji mais gannaaw buñ jàngee làkk yi ba pare lay lay jaar ca làkk woo di ñëw ci ñoom muy ñoom seen ndono mooy jaar ci làkk bi di ñëw ci yow yow sa ndono nga tàmbali du ko bàyyi ndànk par ndànk defe naa seen Tuubaa ci ku ku ku fës la ci loolu ba mu naan lisaani yaxtamat an illugaati la siyama alsinatu lbugaati kon defe naa yu mel noonu moom moo tax ñoom ñu doon ñu doon wattandiku lu mel kon làkk wi académique bi ñu ko bindee ak bi ñu ko war a teqantalee xam naa ne dina am tuuti jafe-jafe euh, loolu waaye ak lu mu mën ci doon itam dinañ ko dinañ ko jéem a def benn teqantal waaye daal ñu xam ni lii ay kàddu yu ndongo la buy jottali kàddu yu sëriñam loolu rek mooy moo mooy mooy mooy wax ji ma bëggoon wax euh, ci ci ci lii. Euh, docteur Ahmad Lo docteur Mouhamed Ahmad Muxtar Lo dafa jël kayit wi xaaj ko ay pàcc. bu njëkk bi def na lañuy ñuy woowee muqaddima muy laytaay mu tijjee ko kayit wi gannaaw bi mu jël mawduu bi xaaj ko ñaari xaaj ndax dañ ko wax loo ci ay taxaddiyaat muy ay pakk wala boog ay samp yoo xam ne jamono samp na ko ñu jàpp ni mën naa am loo xam ne dina ko gàllankoor ci suñu ndono xaj na ko bëgg mu fa du fa jekk wala boog faa ili yi yeneen ndono yi am moom du ko mën a am pakk yooyee nag moom la fasal yéene waxtaane waaye laataa mu cee wax def na muqaddima gannaaw muqaddima bi muy ab ab laytaay gu mu laytaayee la kayit bi gannaaw bi dafa jël taxaddiyaat yooyu xaaj ko ñaari xaaj benn xaaj mu tuddee ko ak taxaddiyaat al zaatiya beneen xaaj bi mu tuddee ko ak taxaddiyaat al mawduiya Euh, avant muy dugg tamit ci taxaddiyaat yi am na yeneen ay mbir yu mu def ay laytaay mooy wax na ay muqawimaat ak alxasaais mais xam naa comme ko waxtu wi ñaar fukki minute tamit bariwul lool luñ ci mën a jaar ci jaar bu gaaw rek dinañ ci jaar su defee ñu tënk bu defee ñun ñëpp ñu xam lenn ci xalaat yi nga xam ni moom la oustaz Ahmad Mokhtar Lo di leeral ci ci ci kayit wi euh, fi mu tàmbalee ci muqaddima bi daf cee wax ci ñaari mbir ci muqaddima bi benn mooy ay pakk dafa baax ay pak nit di dund wala am mbir di dox am ay pak mba am ay galankor loolu dafa nek lu bax donte ñun nag kenn ci ñun bëggul ay galankor waye galankor dafa nek lu bax lu tax mu bah, foofu dafay leeral ndax galankor day tax nga xalaat ci ñett li ngay ñëk xalaat moy di nga xalaat ana lan mo waral galankor gi moy di nga bax saan asbab at tahaddiyat gannaaw ba nga wëré lako sabab ba noppi di nga wër wa man numay def ba galankor gi mu mën ko tegg gannaaw ba nga gisee la koy tegg itam di nga xalaat ni numay def ba li ñew ci kanam galankor gu mel nii du ci du ma ci tàbbiwaat wala du amat moy li ñu wax prévention wala wiqaaya nga xam ni day tax nga am ben nasara ishrafiyya ci li ñew ci kanam kon lool moo tax mu ni gàllankoor dafa bax wala ay pak dafa bax kon bepp mbir buy dox su amé ay pak rek loola lu baax la ndax mooy tax xelu nit ñi liggéey tey su fekkoon ne amuñu ay pàcc ku nekk da toog rek croiser les bras daal di xoole mais pàcc moom moo tax mën a xalaat mooy benn bi mu wax ci lay bi beneen bi ci topp moom mooy euh, li ñuy woowee turaas laysat qadiya maazula comme ni ko arab yi waxee nekkul loo xam ni daa beru dafa am ay mbir yoo xam ne dañuy jeexintal ci moom maanaam yow fi nga toll ci politique toll fi ci wàllu mën a aar sa bopp toll fi ci wàllum économie foofu la sa turaas di toll te lu tax tubaab bi ay ndonoom ak ay ba suñu école yi peut-être ñu ngi jàngal ay ay ay Voltaire ak i nangam ak nangam ndaxte dañoo taxaw économiquement am nañ doole politiquement am nañ doole mën nañoo aar seen bopp waaye yow mi nga xam ne sax mënoo sax aar sa bopp nga ne da ngay aar sa ndono yaakaar naa loolu ab ab problème bu mag lay doon. te fi Afrique gis nañ ko am na dëkk bu jege fii rek duñu tudd tur parce que loolu sax bokkul ci man xaj tamit ki may ardal euh, mais dëkk bu jege fii rek soriwul dara boo xam ne daanaka ñaat lu mat ñaar téeméer soldat rek ñoo fa jóg état ba am cité daanu ba daanaka France moo mujjee mujjee ñëw dugg si kon dëkk boo xam ne ñaar téeméer nit bu buñ jógoon mën nañoo daaneel dëkk ba nga xam ne yow mënoo aar say say say nit boo nee dinaa aar sama ndono tamit day nekk loo xam ne lu jafe la tamit sa doole yëggul ci li nga yor nga mën koo wesaare sa biir dëkk ba koy génnee di ko wesaare feneen soo nee mën naa ko wesaare tamit day nekk loo xam ne lu jafe lay doon waaye beneen bi ci des tam mooy wàllum politique mooy say xaraaraat siyaasiya muumaloo ko sa bopp benn waaye mooy toog fee ca gannaaw naa defal ngay def mun naa la baal baal ngay baal te kooku lam lay digal moom boppam la ciy xool du la ci xool yow xool ba xam yaa ngi moom loolu intéressé ko moom li ko intéressé mooy moom ba xam mu ngi dem wala mu ngi wàññeeku kon kon loolu moom mooy laytaay gi nga xam ni docteur def na ko ubbee ko kayit beneen bi ci des mu wax ni maanaam tey buñ doon xool turas dafa jël benn rek lu ñu woowee adabu shaabi al adabu shaabi tey su ma ko doon misaal dama naan ñun suñu taalif yi ci wolof ak suñu cax yi ñu am ak xikma yi ñu am sànq rek docteur mu ngi tudd ko wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa sa borom mais loolu ci biir ñu ñuy jàngal ay jikko ni maanaam yow li nga yor te moom ko da nga koo war a da koo war a wattu tey soo déggul olof tey nii la suul suul ker du ko tax a feeñ loolu ay jikko la yu nekk maanaam ay ay làkk la ay ay nu ñu ko mën a waxee ay am si la la mais ci biir am na am njàngale imma ci wàllu jikko wala wàllu comportement parce que yooyu yëpp ay ndono la sànq docteur moom koy wax parce que ndono du rek rek ay li am jëmm waaye xataa ci comportement ci ni nga war a doxalee ci ci ni jëlee say xaraara yooyu yëpp dafay dugg ci biir ci biir ndono kon tey suñu xoolee suñu adab shaab bi docteur nee na foofu la foofu la suñu lu bëri suñu ndono di feeñee ci ni ñuy xalaatee ci jikko yi ñuy yaree suñuy gone yooyu yëpp day xalaat parce que tamit nag euh, ñi udabaa yi dañuy wax ne al adab mir'atu shu'ub tey euh, population boo bëgg xam ñoom nu ñu mel nu ñuy dundee il faut nga dellu ci seen wàllum littérature di nga xam ñoom naka la ñuy naka la ñuy dundee kon kon moom dafa jël comme al adab shaabi ni tey buñ ñu bëggoon a xam rek turaasu Afrique buñ ñu jël woon ci al adab shaabi muy suñuy woy ak suñuy léeb ak suñuy kii am na ci yu bare bare bari dina dina feeñ foofu noonu waaye moom day wax ni su fekkee ne da ngaa jàngal li nga xam ni moom mooy ak turaas al ifriqi di nga ci gis ay ay ay mbir yu bari ndax turaas ifriqi tamit dafa am benn problème bu ci nekk problème bi mooy ixtilaaf fil marjaiyat mooy dañoo am ay ndono yu wuute tey jii am na ay ndono yoo xam ni boo dee seet dafa dafa dellu ci lislaam am ndono yoo xam ni boo dee seet dafa dellu ci wàllum ceddo am yeneen ndono yoo xam ni dañuy jéem a lënkale diggante ceddo gi ak ak ak lislaam bi loolu moo tax ndono li ñu am ci Afrique nekk loo xamante ne nii lu lu xaw a lu xawee jafe lijjanti la mais nee na boo xooloon tey jii ndono li ñu am di nga gis ay mbir yu bari yoo xam ne day feeñ ci suñu dono bu njëkk bi mooy di nga gis ni africain gëm na wujudul ilah maanaam gëm na ni yàlla am na day feeñ ci ñun suñu ndono tey boo demoon ci yenn diyaana sharqiya ilhaad dafa bari maanaam ñàkk gëm dara mais ñun ci Afrique même su ma gëmul sax ni yàlla mooy yàlla yàlla mais dinaa gëm dina am yàlla bu ma gëm moo xam nag nañ koy tuddee ca ab làkk wañ koy tuddee bu dee ci wolof mu ni yàlla bu dee ci séeréer yi xaw ma roog seen la ñuy wax wala yu mel noonu waaye daal ak nu mu nu mu manti mel daanaka xeet woo dem ci Afrique dina gis ni ñoom gëm nañu gëm nañu yàlla loolu bokk na ci li nga xam ni day day wane euh, euh, ndono Afrique beneen bi itam ci ndono Afrique day feeñ ci biir ndono Afrique ni ñun dañoo gëm ni am na ay yeneen ni mbir yoo xam ni duñ leen teg bët waaye ñoom dañuy def jeexintal ci suñuy dund loolu moo tax ngay dégg ay rabak ay yu demee noonu loolu tamit tax na li ñuy wax ay njibar ak i seet ak i faj yooyu yëpp tasaaro loolu tamit bu ñu xoolee turaas Afrique dañu koy dañu koy seet ndax ki jóg di dem di faju ji walla di faju ji ci maamam bi wala dara parce que dafa am benn intiqaad bu ko animé mu dem pour pour fajo ji intiqaad boobu mooy moom gëm na ni am na ay mbir yoo xamante ni ay rab wala ay yu demee noonu ñoo xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñoo ko teg loolu mu tegoo wala boog ñoom ñoo am jeexintal dundam mhm. ba tey tamit bu ñu xoolee ba tey turu Afrique ba tey dañuy gis ni li ñu woowee ibadatul aslaaf mooy ñun ci Afrique ñu bari ci ñun gëm nañ ni ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu ba tey ñu ngi des ak ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu tey mhm. faatu nañ ñu bari ba tey ñoo ngi des ak ñun ñu ngi ñuy gis ñu ngi jokkaloo ak ñun mhm. loolu tamit day feeñ ci biir turu Afrique ba tamit ci Afrique tamit boo xoolee seen ay yu bëri ci ay mbir yu ñuy def dina leer ne ñoom gëm nañu ni bu ñu deewee dinañ dekki Afrique tamit boo xoolee ba tey wàllum euh, jibaar tamit boo ko xoolee da nga gis ni lu dugg la ci suñu biir suñu biir turaas moo xam mu nekk njibar ngir indi am lu baax wala boog njibar ngir dàq lu lu bon beneen bi itam soo xoolee ci suñu ndoonay Afrique da nga gis ni ñun dañoo bëgg lu ñuy def lu nekk rek def ko ak mbooloo comme defe naa am na suñ jamono yu am lu siiwoon lu ñu woowee l'arbre à palabre bi demee noonu mooy boo demee ci dëkk yu bari dañuy am am pénc moo xam ne fa la ñuy toog di nos kon ñun bokk na ci suñu ndono mooy ñun aljamaaiya dañoo bëgg def mbooloo bu ñuy tënk dara mbooloo mi dañuy toog ñu tënk waaye am na benn sultawiya souvent buy am ci ci mbooloo yooyu mooy la plupart mbooloo yooyu mag ñi rek ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy décider mm-hmm. waaye gone yi moom seeni xalaat kenn kenn kenn du ko kenn du loolu loolu tamit dafa bokk ci li nga xam ne ci ndono ndono ndono suñu ndono la bokk beneen bi tam mooy soo demee surtout ci wasani yu ne yi mooy ñi nga xam dañoo gëm gëm ay euh, nu mu tuddati al wasani yun mooy euh, ceddo yi di nga gis ni ñoom am na yu bëri ci ay wàllum jikko taxul ñu sonn ci lool moo tax boo xoolee ci wàllum colin wàllu fecc ak lu mu bon ak ak lu mu baax ñoom daanaka duñu sonn ci yu mel noonu parce que wàllum jikko daanaka euh, taxul mu

léegi taxaddiyaat wala boog pakk yi nga xam ne moo nekk ci biir ndono li moom mooy bari na loo xam ne ñun ci ndono li nga xamante ne ni am nañ ko ndono loo xam ne rajo yi at mi maanaam du ndono loo xam ne lu mën a lu mën a avancé te loolu man dama naan bu ñu doon misaal jërul ñuy dem ci benn dëkk Sénégal rek te suñu Sénégal boo newoon culture fecce ko yi rek dañuy xalaat maanaam euh, lu gën a bari ñun suñu ndono da cee am ab xaaj du lépp nag da ci am ab xaaj boo xam ni demut fenn mënta yóbbu am réew fenn mënta yóbbu ab dëkk fenn kon ci biir ndono mi am na ci loo xam ni war nañ koo seppi ba mu set jël ko tegee ko tegee ko bopp beneen bi tam mooy même ñun suñu biir ndono ñi nga xamante ni nii fexe nañ ba ndono li bi lislaam ñëwee ñu jéem a boole ndono li ak lislaam gis nañu ba tey ñoom itam dinañ def effort waaye dangay gis ba tey ni moom mi nekk jullit instant bi mu nekkee julit mu ngi ci boole waale def yëf yoo xam ne ci yëfu ceddoo lay lay lay dellu maanaam daa boole nekk julit waaye defaale loo xam ne ay yëfu ceddoo foofu tamit indi na fa wax joo xam ne Ahmad Bello moom moo ko indi ci Infaqul Mansour ci taarix bilaad Tukulóor di wane ni am nañu am na ay xabiila yu bëri yoo xam ne ci Afrique ba ñu tuubee jël nañ diine ji waaye dañ cee boole waale nag di defaale loo xamante ni ni ca ceddoo ga lay dellu beneen bi tam mooy alfahmu turaasi li turaas mooy ñenn ñi dañoo jàpp ni te taabir boobu mu ngi ko jëlee ci ku ñuy wax jaabir euh, abid jaabir ci muy ab euh, ab faylasuf maghribi euh, moom mooy tuddee noonu mooy wax alfahmu turaasi mooy ñun suñ donee dañ ko dañ koo déggee déggin boo xam ni daa xaw a dellu gannaaw te loolu mooy li docteur di wax toujours suy waxtaan mooy ixtiyaar gayr zaat shawk toujours dañuy tàng li gën a yomb ndax bu ñëwee yow bu ñëwee ni la lii sa ndono la lii sa ndono la ndono loolu jéemoo def benn yitte ngir jéem ko jàngat ci jàngat moo xam ni mu xam-xamee la laa wax jéemoo seet ndono loolu ana lan moo ciy jëmale kanam ak lan moo ciy jëmale gannaaw jéemoo ko xool yow daal da jël ndono lépp lii sama ndono la jéemoo def segg foofu tamit joxe na misaal ci at suuf yi manaam ci tey ci suufi ya amna ci loo xamanteni ni fihi sahih wa fihi daif comme ni mu ko waxee fihi almanxuul fihi gayri almaqul fihi almantiqi wa gayri almantiqi maanaam dafa am ay yu bëree bëri am na ci loo xam ni lu xel nangu la am ci lu xel nanguwul am na ci lu baax am ci lu baaxul am ci lu wér am ci lu wérul yooyu nag day laaj manahija ilmiya maanaam yoon yi ñuy jaar tey ci gëstu ngir mën a segg ni lii kat lu tegu la ci xam-xam lu xel nangu la luñ mën a vérifier la teg ci loxo ak lii kat du lu wér luy mab la dañ ko tege non manam juhdu bobu effort bobu ñu wara def ñun souvent duñ ko def léegi nak bu waxe lolu ci touras soufi batay taxul mu baye yeneen touras parce que tam même salafis sax dañu am problème tay bo demone ci salafisme dañu am problème amna ñu bari seen ulama yi amna ñu ci xam surtout khatam chérif souvent day wax ne war nañu réviser wat li nga xamni mom moy mooy mbindu al fikr salafi kon kon lolu fépp la am muraja'a moy muraja'a docteur Cheikh Ndiaye def parfois ak ak tok réviser xool lu ci baax ak lu ci bon ni mu waree waa tasawuf noonu la waree yeneen kuréel yi des waaye ñun day mel ni dañoo bàyyandiku jël turaas bi lépp rek gàddoo ko noonu jéemu ñoo segg xool lu baax ak lu baaxu façon gisin boobu noonu gisin la boo xam ni du bu du bu baax beneen bi itam moom mooy taraakum yëpp bi bi turaas am tamit te loolu tamit dafa feeñ ñun ci Sénégal Sénégal fi mu toll bu ñu waxee mag ñi daanaka passé wuñu téeméeri at gannaaw gannaaw te école pire rek mu ngi daanaka ci 1603 gannaaw bi état islamique taxaw na fi avant cent cent ans état islamique taxaw na fi boo xam ne di doon doxal l'islam muy euh, état ay may nekkoon nekkoon Fuuta Tooro kon ñun tey bu ñee mag ñi daanaka passé wuñu ab diggante bu gàtt or que ni nag mbir mi nañuy déggee affaire bi dañ ko war a gën a yaatal maanaam dégg dégginu mag ñi dañ dañoo ko war a gën a yaatal ñeneen ak ñeneen dugg ci beneen bi itam ñu bañ a def ñu def jiraasata kaamuliyya maanaam ñu fexe ba ndono ñu bañ jël lenn bàyyi leen ndono li lépp suñu ndono la da ngay jël ci kii jël ci kii jël boole lépp dina ci am ay yoo xam ne day daje am ci tamit yoo xam ne day wuute ndax wuute boobu am richesse la tam day tax ñu gën a mën a gën a mën a jëm kanam beneen bi tam mooy beneen dras tafadul yi li Abdourahmane Taha Taha Abdourahmane di wax mooy parce que ñun Sénégal suñu problème loolu la parfois da nga gis. suñu buñ toogoon jotaay bay jóg li ñuy fay nekkee mooy lii moo gën lii lii moo gën lii ñu nekkuñu ci logique gu lii moo gën lii logique gu boole yëpp seet ana luñ ci mën a jëriñoo ana luñ ci mën a jëmale kanam ci logique boobu lañu war a nekk mais waruñoo nekk ci lii moo gën lii gënul wala boog yu demee noonu ndax bu ñu ko dajalee yépp dañ xam lan moo ci gën a mën doxal ak lan moo ci delloo gannaaw su defee ñu delloo gannaaw ñu teg ko ñu doxal ñu ko taxaddiyaat mawduu'iyya yi su fekkee ni Touré Ndiaye heure yi jiw ci ci bu gaaw benn bi mooy ñun taxaddiyaat mawduu'iyya mooy yi nga xam ne day génn turaas bi ci boppam kon sànq fay wax naa ñett ci ci taxaddiyaat zaatiyya yi muy jaxasoo gi turaas gi xaw a jaxasoo bi tam dégg bi ñuy dégg ni turaas am na problème beneen bi tam maanaam turaas dañ koo xaw a tënk dañ koo xaw a tënk gën naa yaatu ñun suura bi koy bi koy bu ñu ñëwee ci taxaddiyaat mawduu'iyya yi mooy ñun ci Afrique seetlu nañ ni lu gën a bari ci ay xissa dañ koy dañ koy mokkal mokkal moo sax sax am paate ba wax ni bu am màgget faatoo ci Afrique day mel ni ab bibliothèque moom moo la ndax ñun riwaaya shafahiyya rek lañ lañ def suñu lépp dañ koo mokkal te tamit tubaab bi bu ñëwee tamit dañoo nax dañoo nax ni waaw ilmiya pour nga nekk borom pour pour nga li ngay bind am xam-xam doo ko jëlee ci ay ay ay riwaaya shafahiyya ñu ànd ak ñoom ci loolu beneen bi tamit gis naa ci beneen problème tamit mooy problème mu làkk wa ñu koy bind tamit daanaka du doon suñu làkk nga xam ne làkk wa ñu koy bind ñu koy xam ñun ci ñun ab ab lim bu néew lay doon kon loolu ab problème la bu mag mooy ñun daawuñu woon bind même boo xoolee histoire Soundjata Keita fan yi maa ngi ci yërndu boo xam ne euh, l'historien guinéen moom moo ko def euh, moo Jibril tam Niane bu mu def ci euh, Soundjata Keita mais day wax ni ab màggetum géwél moo ko ko nettali mu jël temps bind ko li mu tuddee Soñjata Kayta l'épopée l'épopée euh, mandeng euh, wala ou l'épopée mandeng moom la moom la ko tuddee ñu tarjama ko da ngay gis ni moom dafa dem ci am màggetum géwél mu nettali ko mu bind kon loolu li muy wane ne mooy ñun dañuy nettali rek léegi nag lu ñuy nettali dina dem ba mujj daanaka bu ñu ko bindulee day day day réer kon loolu bokk na ci li nga xam ne taxaat jiir tamit ba tey mais beneen bi ci des moom mooy mun naa ne mën naa mën naa xoowee tubaab bi rek mooy tubaab bi fi mu toll nu mu def ngir féewale ngir xàjjale ba ñun duñ dajaloo parce ñoom dañoo muus fexe nañ ba lu mel ni Allemagne par exemple woote xawmi Allemagne yi fexe ba dajaloo moom ci biiram France def noonu keneen def noonu ñu dajaloo seen biir gannaaw ba ñu dajaloo pare ñu defaat tamit beneen comité bu mag woote xawmi européen fexe ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ci beneen kuréel bu gën a mag am doole koo ci laal laal keneen léegi nag ñu xam ni lii ñu stratégie bi ñu def nii bu am solo la te ñee bu ñu ko defee ñoom duñu duñu li ñuy am di ko jëlee fee du mën a nekk ñu ne nañ fexe ba xaajale leen bu kenn taxaw keneen moo tax te ci Afrique da ngay ñëw fekk ay guerre diggante ay xabila autotut si ci ci ci ci ci euh, kii ci Rwanda yaakaar naa war na doy wala boog Antibalata ak Sédeka ci centre Afrique ak yeneen ak yeneen histoire yu bari ci Afrique ngay ñëw fekk fi jote diggante xabila ak xabila diggante diine ak diine diggante nangam ak nangam te moo ne day mel ni kon tubaab bi amuñu amuñu ay ay ay am nañ ay xaajaloo mais yooyu yëpp fexe nañ ba boole nit ñi ci benn huwiya kase loole nag ñun daf ñoo daf ñoo manqué mooy xaajale gi tubaab bi di xaajale beneen bi itam mooy ñun suñu nuxba afriqiya yi suñu nux mooy ñun ñi nga xam ne ñoo njëkk a jàng ci ñun bañ demee tubaab yi dañoo fëkk seen ay bopp daanaka dugal ci yoo xam ne yu amul solo la mm-hmm. parce que euh, Jean Paul Sartre day wax ni dañ daan jël ay nit jëlee leen bu ñu leen indee waroon leen Amsterdam London Norvège Belgique Paris jox leen ay changé seen ay façon yére seen façon xalaatin jox leen ay kii après ñu delloo leen Afrique bu leen delloo Afrique nee na ñun fii la ñuy toog ci Europe la ñuy toog bu ñëwee bu ñëwee weex na ñoom ca Afrique ñu ni ñu ni weex na bu ñëwee ñuul na ñoom ñu ne ñuul na parce que ñoom ñu fiy nekk ñun dañ leen a jàppee woon ay ay ay noon ñoom tubaab bi daanaka soppi gu bari mënuñu ko wan a soppi mais ñoom bañ fi jógee ñi fi ñëw remplacer leen fi ñoom ñoo ñoom ñoo gën a yées ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fi lu gën a bëri lu fi nekk ci lu màbb ci suñu ndono daanaka mën naa ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko màbb kon xaj na waxtu bi moom moo ñuy moom moo ñuy moom moo ñuy moom moo ñuy xoj beneen bi itam wane na ni awlama Cheikh Ndiaye sànq tudd na ko tur Cheikh Ndiaye muy li ñuy wax globalisation man sax du ma wax loolu dama am raka fi mu toll xutbiya benn xutbiya la ñuy dund mooy benn dëkk rek moo fi nekk yor doole même européens yi sax dañoo am problème kii boobu pour pour pour défendre seen bopp ci ci awlamu buy jógee ci Amérique moom moo bëgg a farde ni muy gisee ni muy dundee ni muy léppam lay farde ni ñi léegi nag yow pour nga mën a aar sa bopp loolee am na lu bëree bëri lu mu laaj loo xam ne ñun amuñu ko kon loolu tax na lu gën a bari suñu turaas di dem wax na tamit nii li nga xam ni moom mooy sànq suñ turaas fi ko nit ñi di jaar fi ko tubaab yi di jaaree lu gën a bëri ci saxaafa wal i'laam la mooy ci wàllum journalisme beneen bi ci leen wàllum cinéma wa ki ay film yu demee noonu beneen bi tam moom mooy suñu lu fi mag ñi bind tey da ngay dem di gëstu benn téere Cheikh Oumar Foutiyou fekk ko ci benn bibliothèque ci ci ci Europe. imma tabatu lay leen wala Escorial wala makaati bi mag yooyu nga xam ne euh, fu ci Europe la nekk kon fan yi rek maa ngi suivre benn information ci ni France war naa delloo si ay objets yu bëree bëri biir Sénégal fii ak ay dëkk yu bëree bëri yooyu yëpp même su ma juumul jaami jaase bi Cheikh Oumar Foutiyou Tall doon yor ci la bokk yooyu yëpp ñoom ñoo ko fi roñee woon gàddu ko yóbbu bañ ca noppee fi mu toll nee nañ dañu koy dañu koy delloosi kon dañuy buub di yóbbu ba pare di indi tamit ay film ak yeneen ak yeneen ci jaarale ngir mën a xàjjale ngir man tamit ba tax ñu gën a sori suñu kuraas kon euh, xaj na yombut ndax joxe këyitu jàmbur dafa dafa xaw a jafe ndax kii bind la plupart ay ay niqaat ruus aqlaam rek lay bind ndax moom li nga xam ni moom mooy expliqué lii moom da koy waajal ci xelam du nekk loo xam ne lu muy bind la moo tax soo ko wuutoo itam bëgg ko bëgg ko expliquer yenn saa yi dina xaw a am tuuti jafe-jafe waaye lépp loo xam ne lu ci jubla rek ñu xam ne ci yàlla la ak tamit ci njàmbaaru ki nga xam ne moom moo waajal kayit bi lépp lu ci dëng tamit ñu xam ne ñun xat na suñu jottali moom moom moo des waaye bëggoon nañ mu gën a mu gën a mu gën a yaatoo nii mu gën a tamit rafetee nii wasalaamaaleykum wa rahmatullah